maa yaayam. ma tegal su ma nee maay papaam maa yaayam mën naa ne maa ko sant géejawaay. déglu leen ndax euh, président Macky bi ma nekkee son chargé de mission à l'époque. déglu leen euh, au niveau de la primature de même ko au niveau de la l'Assemblée nationale. yàlla def Ablaye Wade euh, def li mu def man damay démissionné ànd ak moom mu woo ma ne ma demal géejawaay damay créer parti ñu taxaw xeex non seulement bi ñuy démissionné sax bañoon na maa ngi ñoom Thérèse Faye ne woon nañu des fa mais. dem Grand Yoff maanaam suma ben xarit euh, gorom la ndax mo jabar ñu bokk lay bay vieux job bi mu ñuy gungé ba bi ñuy fekk mu dem jakk ji julli ci mu ñuy gungé bi ñu ñëwee ba ci tali bi mom mu dal di depp ñun ñu dal di dem fekk juste jour bobu sama téléphone dafa déchargé wax xam nga yàlla bu dé dogal ay mbir ndegata mom japp nañ ko ramass nañ ko yoroon pièce té c'est un transitaire ADS la nekk di cadre ñu jël ko yobbu bi ñu xëyee bi ñu ko jëlee yóbbu boole ko ay tokkatu yamba yépp pakaté dal di defee déglu man bima xeyel la lande mais ma yokko bima ñewé police Grand yop ay 10 h ñu ne ma defee nañu ma dit mu mënta ñu tok di xaar jugement. yàlla def 2 jours. affaire bi am rebeus ñu door ko ñetti bal. ñaar yi ci ndigg li benn bi ci loxo bi. bal yi ci ndigg li mu jox xottu bir bi pour ñu ko génne. sidik Kaba dem na seeti ko. waxon na la deglu len ñom ñu demandé won ay ex ci première dame pour bëgg a faju comme maram fay dafay nekk dafa nekk benn sénégalaise boo xam ne nii day dimbali ñëpp di jàppale ñëpp ñoom ñu ne dem nañu ba xam ni bëggatuñu euh, Sidiki Kaba ñëw seet leen. parce que boobu ba léegi ñu ciy topp di daw mënuñu am sax liberté provisoire pour dem faju ñu ne léegi nag dañoo bëgg faju faj bu ko jar bu ko bu ko jar mooy nañu première dame dimbali ñu faju première dame dem seeti leen. dimbali leen pour ñu faju léegi nag bi may wax ma bëggoon a wax. la première dame def Mani intervention première dame def. intervention. ba def ñu jël am liberté provisoire. ñu jël ko samay wax. ñi mu doon ne man dama première dame. déglu leen ñi mu doon biñ comme lim leen wax ni mom na ko ramasse parce que dafa am parlementaire.

ñoom nag ñu doon ma santaloo première dame ci geste bu rafet boobu yaayam ak vieux Diop te vieux Diop daf ma woo ci jour plénière bi dama ko fàttali may ñëw nag pour profiter ci occasion bi ñu ne ñu trois minutes la am trois minutes ma bëgg ci sant première dame bëgg ci laaj bi le ministre de la euh, de la justice Sidiki Kaba ñooñu seen état de santé état bi yan yan yan matukaay la si jël far nag wax ji rëcc ma ma ni première dame intervenir. wax ji daf ko rëcc. ba noonu ñoom après si ba ñoom ba ñu génn. ñoom ñu ne nag man dama ne première dame bu ko génnee nangam ak nangam première dame ñoo dem newul ci Sénégal. bi ma xëyee benn journal boo xamee ni Sénégal yi sax duñ ko moo ci bind loolu ndaw. te ah. def ne Bougazelli bi ñuy wax dafa def erreur moo tax Abdou Mbow rediffé ko. benn waay bu nekk ci ci ci ci ci benn tere. yàlla na ni sax saa yóbbu wax na ko kenn la kenn xamul lu mu euh, euh, euh, daal di jël wax ci li mu même moom naroon naa ko yóbbu parce que su ne damaa wax a wax ba ci mais man mais man musuma wax di jëw jëw sama patron man musuma sosal président de la république man première dame musuma recevoir ba gën di ko sosal yooyu yëpp mi ngi fi ci ci def ba président di ko daw

ñaari niveau yi tolloowuñu mais li wér wóor bis bu attaqué président Macky Sall keroog dina tal leneen parce que man tamit am naa ay éléments yoo xam ne ni. ay éléments am laa koy def pour xeex ak moom. ay éléments te mën naa yëngal dëkk bi. dégg nga lii comme ni ko gars yi di defee. mën na yëngal dëkk am naa ay ay euh, yoo xam ne saa waay bu ma ko bu ma ko dugal ci internet bi dëkk bi dëkk bi tàkk waaw ay enregistrement yu doy yoo xam ne ni foo muy liggéey la ko wallahi asib ñoom ñaar su ñoom bi ma leen ko tegalee dañoo jàpp seen gémmiñ tegal naa ko ñaar su ñoom am na samay xarit yu ko dégg eh, léegi nag li fi nekk. dafay am ay enregistrement ma xamal ko ni man mënu maa yàq. parce que man benn bi si jiitu mooy am naa ñaani waajur làkk naa sama ñaanu sama ñaanu papa ma ni mu faatoo sama yaay gërëm na ma Serigne Saliou gërëm na ma ndax lu mu bon teg na sama loxo bi na ma maa ngi ñaan si Serigne tubaa doo yàqu doo yàqu loolu am naa ko ci Serigne Saliou kon moom mënumaa yàq bi ñu xëyee le lendemain na ma am ñu ma woo damay fàtte seen euh, groupe de kii bi na ma yow ren yow la ñu nommé meilleur homme politique de la banlieue Polydor bi yow la jox le nga xam ni gis xam ni am na si ñoo xamee ni kenn du leen laal te pourtant xajuma ci kawam. politiquement xajuma ci koom wallahi azim xajuma ci koom ku dul moom sax xajuma ci koom maasuma mais dama solo parce que nguur boo gis dafay jeex te bëgg naa bu ëllëgee bu ma dajeeg moom mu xool ma mu xool ma lu ma rus mais nag sur le plan politique bu dee day politique bu cëppeelu ci géew bi moom man contre président Macky Sall contre suñu parti man dina man fan mais fii lu yàlla def du ay bax du day yalla dogal lol ci man fi ku ma ko àndul doo ko rek ak ku meuna do parce que li tax ngay gagne moy commune golf sud je suis le coordinateur et j'ai monté 74 comités man na le ngi carte yëpp ñetti seen bët 74 comités la monté signé Mbaye Ndiaye Badji mak sal te comité yooyu benn bu ci nek maa ngi lay soufat d'ailleurs leg lañ ma wone ma permanence ma ma nga fees del déglu leen te responsabilité naaw kon donc kooku yooyu muy def noonu day yàq deru journaliste day chantage day taxawaalu ci buntu procureur yi day taxawal si buntu ministère yi yaa ngi dégg di utiliser rajo boobu yaa ngi dégg di ci wayaan di utiliser rajo boobu pour di ci xas nit mbaa di si saaga nit mais man bis bu ma saagaa ci rajo ah ma jaar si sama loolu moom beneen affaire la waaw ah, moo tax ce journaliste là mi ngi yàq deru journaliste yi kenn xamul comédie lay def kenn xamul lu muy def am nga revue de presse jarul ngay commentaire sax waxal li ñu bind ay ngeen baal ma ci wax ji revue de presse mel ni mbaam bu fër voilà di yuuxu da koy menacé yóbbu kaso Ahmed Aïdara loolu man loolu yàquma te ay revue de presse man tiitalu ma xam nga man ngelaw këfuma man maay koo xamee ni ne mën naa lu ne moom moo don dékku mën na dékku lu ne waaye dékku ko dékku mais bu ma la sànnee rek nga xam ne sànni naa la mën na dékku man ay revue de presse yi man yëngulu ma ak di bind ci man nii yëngulu ma mais képp kuy bind ci man rek bind li nga xamee ni moom mooy mooy yoon mais ku bind ci man loo xamee ne amul dama yor jabar yor soxna dama yor ay doom dama yor ay soxna yor ay doom sama yaay nefi sama sœur nefi sama frère nefi sama abdou am nefi sama ne fi samay du ma nangou ken di utiliser ce film wala ce micro naan da nga may jéem a yàq. dégg ngeen yeneen jigéen mu Bougazelli déglu leen Bougazelli. ñooñu amuñu ay argument tanal waxtu senegal manko waxtu senegal manko suko senegal far manko tasaro tasaaroo ñoo ñu jël bop par bop ñu fa nek ñep du Abdou Mbaye du Malick Gakou du Mamadou Lamine Diallo du kenn ci ñoom koy jël teg teg teg teg leen teg président Macky Sall y a pas photo président du seen morom mais Abdou Mbaye tey su ma gisee tey muy taxaw naan maa ngi dem wax Sénégal damay ruus Abdou Mbaye bu ñu naan président Macky Sall euh, moo tax ñu ngi xam ko Abdou mbay xamul woon fii sa papa la dafa judd papaam yor teranga mu ne si banque di liggéey président Macky Sall ñëw teg ko sama wet ko xay mu ñëw nag bloqué réew mi c'est ça le problème Abdou Mbaye Macky Sall dafa ñëw jël ko am ci moom confiance pour mu doxal réew mi Abdou Mbaye ñëw bloqué réew mi te amoon doxul ñëpp sentir dëkk bi ni mu dëgëree lépp moom la parce que moom dafa ñëw wane ni moom c'est un banquier day dajale xam nangam nangam or que boobu mi ngi rey sénégalais bi président xamee ni nag moom dañ koo fal pour mu dimbali sénégalais yi pour mu liggéey réew ci leen ne kii su ma ko fi jëlee dara du dox ci ne ko jëlee sànni fële mais yëf si commencé dox bi Mimi Touré ñëwee ba di Mohamed Boun Abdallah Dionne ñëw ku ne léegi yaa ngi sant Sénégal yaa ngi ci sant sa bopp loolu la président Macky Sall bëggoon. quant à Malick Gakou mosul dégg ministre président Macky Sall ñëw jox ko ministre des sports bu nekk foo def fa résultat ku ne xam ne def fa résultat mu ñëw jox ko ministre du commerce mu jéem jéem jéem télé président dàq ko moom moo démissionné boppam. parce que xam na ni ñu ko jox xamu ko mu sukkandiku ci ni moom ak Abdou Mbaye xëy na peut-être Abdou Mbaye da koy xeex nangam ak nangam moo tax su ma leen gisee ñu ànd man a teg affaire terre bi ngeen dégg leen ci ci ci ci ci benn télé. déglu leen. ci benn rajo ku ne xam na ni sax saa ñëw wax na ko kenn xamul comédien la kenn xamul lu mu doon. voilà. Euh, euh, euh, daal di jël wax ci la ma waxoon même moom naroon naa ko yóbbu ci yoon parce que. su ne damaa wax a wax ba ñu tënk ma. mais man mais man su maa wax. di jëw sama patron man musuma sosal président de la république man première dame musuma recevoir ba génn diko sosal yooyu yëpp mi ngi fi ci mu ci def ba président di ko daw nangootu ko recevoir kenn nangootu ko recevoir djegal leen ma ne ko mais la mo tax bindu ko mu duma ko bind parce que damay xam ni limuy wax amut ma ko di wér journaliste bu ci bind ci man lo xamé ni du deug wallahi azim nit mënuñoo tàqale du tribunal dina ma jaral ma jaay li ma am lépp bu laajee ma ma ma jël fukki avocat dinaa ko jël ba am dëgg ci kawam mënoon nga ko bind ma moom su defee lu baax ma war koo ngeen war ko bind bind leen ko su ma defee lu bon bind leen ko ndax xam naa ni ku judd ba toll fi nga toll mu soo mooy sa borom am naa yaakaar ni du tay ngay euh, tay ngay jëkki saari bëgg a bon bi mu waxee loolu ma jël loolu close mu nekk un politicien bu làqatu ci benn mouvement di dox doxam am na lu mu bëgg am na ci droit sénégalais la su ko neexee laaj yàlla def bi ma jëlee parole au niveau de l'Assemblée nationale bi may wax ma dama ni man maa ngi sant Marème Faye fay que dafa am suma benn xarit boo xam ni dama ko demoon seeti Grand Yoff te là ce qui est grave mais ñoom dañoo bind ni euh, sama xarit boobu dafa yoroon yàmbaa ñëw sama kër koo xamee yow ñoo xamoon sax lu yàmbaa may mel dinaa fa dinaa ànd kuy tox yàmbaa bu dul dara Serigne Saliou ñu ma yar def ci man mbaax def ci man jub def ci man xam àdduna musuma xam nu yàmbaa mel musuma xam nu sàngara mel musuma mooy sama borom ci wàllu soxna suma takkul ku mel noonu ku sette noonu nga bëgg a xëy xëy bëgg koo yàq c'est impossible bu nu nekk yàlla def bi ma demee seeti ko bu di ma gunge bi may gunge comme moom fi mu dëkk sama oto mënu fa woon dem Grand Yoff maa nag suma benn xarit euh, gorom la ndax moom jabaram ñoo bokk lay ak bàyyi